Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média doore xibaaru digg ba ak xibaar bu bi bile mu di génn àdduna ak journaliste bii di euh, Abdoulaye Fofana Junior Abdoulaye Fofana Junior doon ku ñu ràññee woon lool ca rajo télévision Sénégal jamono jëmuy tudd ORTS ci xibaar sax mooy ki njëkk a toog ci télé bi def journal lu aju ca liggéeyam foofe doon na lool dee ko fàtte ba mukk teewlu kaddu yi témoignage bàyyeekoo ci kenn ku mu doon liggéeyandool foofee di Pathé Fall Dieye jiite woon jamono télévision nationale ñu déglu ko moom Pathé Fall Dieye ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Laay Fofana ah, jullit la woon góor la woon ku baax la woon ku yiw la woon eh, liggéeykat boo xam ne bii liggéey na ci rajo Sénégal liggéey bu rafet ci jamono boobu jamono boobu metti la woon bi nga xamee ne bii moom ak ñoom Bachir Konté ak ñoom seen taxawal nañu ah, information en langue wolof booru 1965 ba bu ñuy jëm si à la fin des années 60, au début des années 70, ñu dëgëral lakk wolof des informations qui étaient qui étaient données euh, ci chaîne nationale ci jamono boobu d'ailleurs la ñu taxawal chaîne nationale ndax chaîne nationale amul woon bi ñu koy taxawal loxoom mu ngi woon ci biir mu nekkoon liggéeykat bu am solo وخم لقيم وعم فلة وعم فائدة وعم فتي ذا داخ دان لقي لقي وخم دق دق لقي وخم ني لقي وجفة لو أنت بابا جامونا فاي بدي كده فاك فلة أك فائدة بجراني كذي نبارة خم كذي تمو أمتي ديكوراشن جوجير دو خالد داخ سيرس بوجي راند السنغال أمنا إيجال ما لو خم ني جارنا جارنا جارنا تيجي مون mooy nitu culture la woon maanaam ku ku ku jàng la woon te jàng bi yàqul woon dara ci bëgg gi mu bëgg Sénégal ba tax na ci mujjantalam émission yi mu doon def yëpp ci àll bi la ko doon defee le monde rural développement développement biir réew mi daf ko ñoŋaloon ba émission yi mu amoon yëpp ay émission ci baykat yi la woon ak ci nappkat yi ak ci sàmkat yi pour Sénégal développé ci foofu nga xam ne fa war développé muy réalité réew mi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi yal na ko yàlla Amin Paté Fall ne jamono directeur général bu radio télévision Sénégal moo defi témoignage jëm ci euh, Abdoulaye Fofana Junior mi fi bàyyeekoo tey ji ci groupe Futur Média ci sama cadeau di ko jaal njaboot gi jaal koy mbokkam jaal ko mboolem ñi séq euh, tas xibaar bi. directeur protection droit de l'enfant ministère de l'Enfant, mi ngi am lante moom ñoxo euh, bay Diouf moo porté plainte lan ciy sëriñu daara yoo xamante ne ji daal dañu ko doon tëkku ci ni mu ko waxee ba plainte ba teere ji police police di lijjanti mbir moom mi ak sëriñu daara yooyu ñu ca tudd fa yëf ya tollu leerali Alaaji Njogu Jeen sëriñu daara bi di Jili Mbay moo njëkk a ci kanamu enquêteur yu commissariat central bu Dakar ñeneen ñi war Tifan topp ci fan yi di ñëw toll nañu ci juróom nit si tudd eh, ci bi directeur de la protection des droits de l'enfant, enfant ci ministère de la femme et de la famille Moko déposé boobaak léegi ëpp na fukki fan ñu xobaay Juuf lim ci wax nag menace de mort di maanaam tëkku faat bakken injure publique saaga ci outrage à agent dépositaire de l'autorité publique maanaam xotti war ma ndaw luy am. gannaaw ay enregistrement vidéo ak audio yoo xamante ne ay ñu daara def nañ ko génne ko ci réseau sociaux yi dal bu baax a baax ci kawam dem sax ba di koy wax ne mooy noon bu njëkk bu lislaam sëriñu daara yooyu nag daal di koy mere moom directeur de la protection des droits de l'enfant gannaaw opération yi nguur gi jugteel di delloo guney taalibe yi ci seeni njaboot di opération yoo xamante ne nguur gi moo koy amal ngir aar ñii di taalibe yi ci jàngoro ji di coronavirus mi lëmbe ci réew mi jamono ji wante dogal boobu delloo taalibe yi ci seeni njaboot nekkul lu neex yenn seeni daara yi gis ne nguur gi dafay xeex lislaam ak tamit daal alxuraan yi. noonu la ñu ko junjee El Hadj Ndiogou jël mu di coronavirus gi tax ñuy jëlee gone yi ci mbedd mi. ca la ñuy jëm mu di Covid 19 ak takk bi nga xam ne am nañu ko tey fii ci Sénégal seetlu gi moo di cas communautaire ya dañoo yokk lu aju it ci mbiri jàngoro jekk na muy lawee dellul gannaaw benn yoon ñu teewlu leerali docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn test yi nga xamante ne def nañ ko. juróom-ñeent fukk ak ñaar dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro yi ci yooyu juróom-ñetti fukk moom la ñuy wax contact mooy yi nga xam te suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di seet te di leen di topp fukk ak ñaar nag ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi ci diiwaan yi tey Hann am na benn Front de Terre am na benn Parcelles Assainies am na benn Ouest Foire am na benn Cité Asecna am na benn Guédiawaye am na benn Mermoz am na benn yooyu yëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru ak Mbaaw am na benn ca Touba nemmeeku nañ ne am na fa gis nañ fa ñeent cas communautaire ñaar fukki patient ak benn ñoom bi ñu leen seetee gis nañ ni amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñaar fukk nag moom am nañ ko ci cas grave ñu ngi nekk ci bërëbu sowetaas yi mooy maanaam service de réanimation ci l'hôpital yi ñi nga xam ne ñoo tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ñu ngi toll ci ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñett cas yi nga xamante ne am nañ doomu jàngoro ji mooy cas ci yooyu junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñoom wër nañu fanweer ak juróom-ñett làkku nañu mooy génn nañu àddina donc ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lan hôpital yi ñu leen di faj ci bés bi tey ñu ngi tollu si junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dellu di ñaax askan wi. ñu topp lépp looy digtal ba nga xamante ne bu ñu ko defee tey mbas mii ñuy wax Covid 19 mun a génn suñu dëkk maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. mbas moomee di Covid 19 ñi koy amee te duñu xam fu ñu ko jëlee di cas communautaire ba ca feeñoon ci diwaanu Ziguinchor boromam yóbbu nañ ko service réanimation maanaam nga Sowétas ci hôpital régional bu Ziguinchor loolee démb lañ ko fa yóbbu mu di euh, genn góor gu toll ci juróom-ñaar fukki at euh, ak euh, ñett. dëkk ca quartier Yaama Tooñ ga ca diwaanu Sigicoor am na nag ñu bari ñooñ amalan am na contact ak ñoom euh, bokk na ci ñu bokk ci njabootam waaye ñeneen ñoo xamante ne ji kon dañ doon liggéey ñooñee ña nga ñu isolé def ci ñoom yi test euh, war a xaar nag résultat yi waaye ak lu mu ci mën di doon daal ñoo ngi ragal mu dellu si waat jàngoroy coronavirus ji ca Sigicoor Sigicoor Lamine Ba. ginnaaw bi mu toogee diir amul li nga xam ne moo patient service de réanimation bu hôpital régional bu Ziguinchor dalal malade bu bees muy cas communautaire bi nga xam ne ràññee nañ ko ci région bu Ziguinchor démb te mu amee lu 73 ans moom nag jamono ji moo ngi fa nga xam ne nag service soins intensifs bu hôpital régional ñoo ngi ko téye nag ci jamono ji nga xam ne comité régional de gestion des épidémies moo ngi wër ay kontakam ci ay xibaar yi nga xam ne jot nañ ko jege na jamono ji téeméeri nit yi nga xam ne isolé nañ leen li weesu fanweer doon njabootam bi nga xam ne ngi nekk ci quartier tooñ nek ci biir commune bu cas communautaire bobé, moy ñetteel bi nga xamné région bi amna ko bi épidémie bi dooré ba légui waaye nak ñu bëri ragal da fay doon ab foyer bu bess bi nga xamné nañ ko fi ko ginnaw bi fi bu jabir bi xewé kilifay xex ba fay ko jamono ji nak comité régional de gestion des épidémies li wésu cas communautaire yi ñu ngay it ak ka importé nga xamné némé ko nañ ko fan yi wésu ci région bi jamono ji nak li nga xamné ko wax moy amna juroom ñaar do mo nga xamné leen di faj coronavirus ci hôpital régional ñent ñi doon ay ka importé ñaar ñi doon transmission communautaire bi ci mujj doon ab cas contact bi nga xam ne région de Sédhiou la fekk baax Lamine Ba Ziguinchor radio Futur Média. juróom-benni cas corona yeewoon ca département bu Linguère ñu téyewoon leen ca centre de traitement bu hôpital régional bu Louga ñoo ngi xaar test yu mujj yu ñu def ci ñoom ngir dëggal ne wér nañu ba ñu mën a génn ñoo ngi toog di déglu waa Kër Docteur. lu aju ci département bu Louga ka euh, corona amu fa ma ngi fa gëj juróom-ñaari fan ci weeru mai ak léegi Euh, cas coronavirus kon amul it ci Louga département département bu Kébémer foofee it euh, bokk na ci département yi nga xamante ne ji daal euh, ba léegi dégguñu fa coronavirus tolluwaayu corona bi ca Louga Abraham Paul Emmanuel Pouy juróom benn cas positif bu coronavirus ñu leen di faj ci centre de traitement bu hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye bu Louga juróom benn cas positif yi nag Linguère lañ jóge mooy caissière bi nga xam ne moo ko fa njëkk am nekk ci hôpital màgget Lô bu Linguère ak juróomi nit ñi nga xam ne jot na leen ko wàll jamono ji nag ñu yëg tan bu baax ci seen yaram suñ sukkandikoo ci ay xibaar jóge ci waa kër docteur yi la ñoo ngi xamal ne juróom benn ñii nag ñoo ngi xaar seen test de confirmation yi ñuy ñaareelu test bi su ñëwee nag sax te positiful ñu mën a xam ne ñoom tane nañu amatuñu doomu jàngoro coronavirus lu jëm nag ci département bu Louga depuis juróom-ñaari fan ci weeru mai ba léegi amul benn cas positif bu coronavirus bi nga xam ne département bu Louga am na ko département bu Kébémer moom nag depuis bu coronavirus duggee fii ci Sénégal ak région bi amuñu benn cas wu coronavirus depuis le 5 avril nga xam ne coronavirus dugg na ci région bu Louga dooree ko ci département bu Louga diwaan bi nag jot naa am fanweer ak juróom-ñetti cas positif bu coronavirus fanweer ak benn nit wër ba ñibbi seen kër mu am kenn koo xam ne jot na cee ñàkk bakkanam ak juróom benn nit ñi nga xam ne ñoom la ñuy faj jamono ji ci centre de traitement bu Louga xalaat yi nga xam ne njiit yi teg nañ ko moo di képp ki nga xam ne dugg na te nekk ab fii ci région bi ñu jot la dépister coronavirus balaa ñoo indiwaat coronavirus ci Louga mu nekkoon Abraham Poulpouy Louga rajo Futurs Médias direction wa direction générale des impôts et domaines dañu xamlé woon ne foofee ca direction ba nek ci conk amna na euh, kook euh, dafa jotoon jaar defo ni waxtu sax ci fi nga xamantene ji modi euh bloc fiscal bu conk ba mu démé nak ñu gis ci mom coronavirus taxone ñu ami test yo xamné defal nañu koy nit yu nekkon fofé ci direction générale impôts et domaines test ya ba ñu ñëwee li mu wane dara jotu kon xibar baangi nonu seetlu goog def nañu ko ci jamono jile mu di matuwaay yi nga xam ne ñoo ngi ko doon jël ngir moytu lu lawal coronavirus bi ñu naan koy geste barrière seetlu nañu ne nit ñi dafa mel ne dañu cee toqi ñu bari ci ñoom ñi ngi tàmbalee teggi seen tànk li koy firndeel mooy masque yi farataalatuñ ko dandante bi ñu doon santaane di distanciation physique bi ñeneen ñit dafa mel ne dañu koy sàggane ana lu indi loole am ci lu mu ci mën di doon daal ñeneen ci askan wi ñu laaj moom ak jaxle lañu ci am reportage nafisa Silla solom masque bi nag mel ni da fay di néew ñu dajaliko fu nekk loole nak di gën bari setlu ba ngok baye kubi amna ñu bari loolu lañu wax comme ku ci melni Mamadou mustapha Ndiaye mom mi am setlu bi ni mel wa jaxal na ma def na né depuis après la fête ba légui dañu baye affaire yi légui quoi léegi dañu dem ci milier yi man démb dem na ci banque yi yoy sax mais boy dugg rek lan lay laaj masque yi bo xolé client yi bu ñu dugg duñ tak masque mais bu ñëw ba ci banque bi dañ koy tak parce que obligation la ci biir quoi melna ne daal dañoo xaw a léegi baissé bras yi quoi. Abdoulaye nag moom marchand ambulant la solum masque du ko caaxaane waaye nag li muy ñaawlu mooy bàyyeeku bi. yi di forcé pour mooy loolu ñu si bëree bëri duñ ko respecté mais gars yi daal dañoo xaw a bàyyeeku léegi ci feebar bi xaw ma nu mu demee noonu mais xanaa ñu gën a sensibiliser nit ñi rek parce que feebar ba léegi mi si dëkk bi de tey gis nga temps yi yaakaar naa su ma jumul am na ma 91 cas. Abdoulaye sax bi mi ngi tàmbalee kenn rek moo ci takk mas kenn kese xam nga loolu moom lu doy waar la te ñu ngi nekk en groupe di wax affaire yooyu xam nga te yaakaar naa feebar bi loolu lay bañ dañ wax ñu respecter distance bi en plus di takk sa masque Moctar Senghor moom di étudiant informatique li muy génn nag bëriwul waaye seetlu na ni bàyyeeku am na bu baax y'a beaucoup de regroupement jamono ji bëri na ay regroupement ci dëkk bi boo demee ci ay quartier yu mel ni Medina Fass wala ci restaurant yi nii di nga gis nit ñi dañuy toog di regroupé wu te pourtant ñi ngi sensibiliser ci rajo yi ci télé yi li jëm ci takk takkum masque moom nit ñi daanaka bàyyi nañ ko defatuñ ko comme niñ ko daan defee bu njëkk. monte de fexe ba respecté lii di geste barrière yi doon na lu am solo ndax loole nag mooy baaraas bu njëkk ngir ñu daal di mën a moytandiku lii di lawuma coronavirus. niwa waa kilin beek ci am gannaaw ba organisation mondiale de la santé santane ñu génne ko ci pajum coronavirus lañ ci seetlu mooy loolee waa OMS santaane du réew yëpp ko ca nar a topp ne am na ñoo xamante ne ji la ñu wax mooy li nga jàppoon ba mel bu ko bàyyee ti jig la ginnaaw bi mi ngi leen doon joxi résultat yu baax dañu cay wéy laaj bi di ndax organisation mondiale de la santé bu nee nañu def lii am ñu ko fa teggi dem def leneen. ndax euh, maanaam dana dana juri daan ak yu ni mel buñ ko sukkandikoo ci wàllu yoon dana jafe ngir mu am sabab li moo di prévoir yuñ ko benn yoon rawatina ci wàllu wér gu ak mbir yi bu tollee fii nga xam ne urgence sanitaire internationale la ñu koy tuddee ak lu ci mën di am Anna Rocha Lita Lopez Faye mi ngi ñu ciy indi leeral. ci atum 1969 biñ ko règlement sanitaire international bi li ko gëna a na jokk mooy daal di euh, contrôler lu jëm ci walu juroom ben fièvre yu ñu naan ay maladies infectieuses graves waaye choléra peste ak fièvre jaune dong la ñu waroon a déclarer obligatoirement dinañ ci andi ay coppite atum 2005 ci cadre juridique bu bees boobule dañoo tënk réew yi ñu daal di notifier OMS lépp lu jëm ci wàllu euh, xew-xew te mën a lu ñu jàpp urgence de santé publique te mën a law ci àdduna bi yépp règlement sanitaire international boobule nag état yi bokk ci OMS yépp nangu nañ ko dafa fekk nag mënuñu forcer benn réew mu daal di sàmmonte ak diglewu OMS yooyule OMS di teg yaakaaram ci taxawaayu yeneen réew yi ci bokk mu def pression ci réew yi nga xamante ne duñu sàmmonte ak digle yooyule waaye itam ci opinion publique bi ci beneen fànn ci juróom ñaari obligation yi nga xamante ne war na réew yi bokk ci kuréel gi amul fenn foo xamante ne wax nañ fa mbirum garab mbaa traitement bu ñu war a jëfandikoo ci buñu kontel jànkonteel urgence sanitaire internationale lu mel ni lu ñuy dund jamono yi ci coow bu bi hydroxychloroquine ci ñi amee Covid 19 bi état yu nyom ñoom dañu ne dañuy wëyal seeni traitement ba officiellement France képp moom moo jël ay matuwaayam ngir tere boobu lay garab. ñi waa kinin googee nit ñi songandoo ñu bari ngir di ki coronavirus am na ñenn ñu mu jura eh, jurali loraange ak jafe moo di ñi amee feebaru rhumatisme ndax ñoom it dañ daan soxla niwaakin gi ngir di ci faju ba ñu ci jëlee lu bari di ko fajee ñu corona ñoom ci jën jëmi bopp ñoo gisatul doomu niwaakinin fenn Cheikh Tidiane Diagne bëri na fii si suñu réew ay nit yi nga xamante ni dañoo amee feebaru yax yu si mel ni rhumatisme arthrose wala polyarthrite te sax ñoom seen fajin ci bu njëkk ga daanaka amuñ si woon genn difficulté ndax garab yi nga xamante ne soxla woon nañ ko mënoon nañ ko am ci pharmacie yi waaye gannaaw ba coronavirus bi yegsee suñu réew ci weeru mars ba tey daanaka ngir mën am garab yi nga xamante ne moo leen daal di faj doon na lu leen jafe loolu seede Ndeye Diaw moom mi nga xamante ni membre la ci biir association des polyarthrites rhumatisme inflammatoire chronique traitement à vie yu ñuy jël garab bi ñu doon utiliser moom la ñuy fajee euh, Covid bi garab yooyu ci boppam état bi daf ko réquisitionné woon pour euh, mun ci faj ay malade yu Covid léegi problème bi mooy que ñun ci suñu bopp on n'arrive pas à trouver garab boobu et c'est très dangereux parce que moom la ñuy jël quotidiennement et que finalement suñ ko amul euh, day indi yeneen complication ci suñu feebar donc c'est toujours ci ay dégâts collatéraux Covid bi finalement pour trouver que c'est la croix et la bannière. IKIN 200 bokk na ci garab yi nga ni ni moy faj ñi amé li di rhumatisme ndey faatu si jégué lolu ña amé gile jàngoro daanaka wër na ndakaaru yépp ngir mëna am garab bu leen di faj wante limu jur nak moy ñi nga xamné dañ leen ko prescrire ku ko war jël 3 fois par jour dem na ba légui sax dañuy mujj mu koy jël 2 fois par jour parce que ragal benn boîte bi nga xamné jot nako am ca boba boîte bi jeex te bu jeexee rupture de traitement la te lolu te mun na incidence bi nga xamné moy euh, li guy fajj mu nekk arthrose wala arthrite ak yeneen xéet yo xamné tam euh, ci walu wowo la jëf te ba fu ngay ni fa pharmacie yi yoreetuñu ko. gannaaw ba coronavirus bi duggee Sénégal ci weeru mars état bu Sénégal dafa dogal dal di réquisitionné garab yi nga xamante day faj lii di coronavirus bi lolnak indi gàllankoor gu bëri ci ñi amee lii di rhumatisme ndax ñoom garab yooyu la itam dañ koy yittewoo ngir mën a faju Annette Seck Ndiaye di directrice bu pharmacie nationale d'approvisionnement gannaaw bañ ko woowee laaj ko moom mu indi leeral xam ne ni di structure bi nga xamante ne moom lay gérer ay don lañ koy faral di jox te yooyu sax nga bawoo ci yenn laboratoire pharmaceutique yi laata sax mu ñuy xamal ni garab yi nga xamante ne mooy faj lii di rhumatisme chronique yi ña koy jaay moo di privé yi Cheikh Tidiane Diagne ngeen di ànd ak rajo Futur Média di fi dégloo xibaaru digg bëccëg gi benn waxtu du nar fekk na ñaar fukki minute ak ñaar. Pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. terminus bu Liberté cinq di fi nga xam ne fa la ñuy yabee jàngalekat yi war a dem ci biir réew mi ngir jàngale ji ba léegi euh, nit ña maanaam ba léegi kon mbooloo am na fa lu aju ci ñooñe nga xam ne ñoo fa daje nag ñi ngi ñaaw lu daal lañ leen fa dajale te wàccoowuñu benn yoon ak geste yi ñu santaane ngir moytu lu lawal jàngoroy coronavirus gi bokk na ci dandante beeg yu ni mel Salimata Aw tey ji xëy na dem ca terminus Liberté cinq reportage. Un terminus plein à craquer, des bus en partance pour Kebemer, Louga. Salimataw man ay wolof la bëgg ñu wax ko jëm rek ci reportage boo xam ne def na ko tey jii terminus Liberté 5 ñi nga xamante ne ji kat lañu war a dem ci biir réew mi jàngale ji ñu gis ne gis nañ fa mbooloo mu takku gis nañu fay ne daal geste barrière yi ñu ne nañu wàccu ak moom respect ba amu ca Salimataw Linguère ñaata ñaata départ terminus Liberté 5 fees dell ak ay nit ay bus yu jëm kebemeer Louga podoor Linguère ak yeneeni béréb jàngalekat yi dajaloo ñi di daw naaj ba di wut kër soxna si boot doomam xale bi nag di jooy ba tax mënul sax wax. madame kundul keneen si ñoom yor ñaari doom moom mu ni lii mënu koo comprendre. ah situation yi de vraiment c'est déplorable. doy na waar parce que depuis sept heures du matin ñu ngi nii toog mi ngi noonu daal gis nga situation yi ni mu demee ñu ngi ci naaj bi sous le soleil ak suñu doom ñu ngi nii daal comme nii nii ñu entassé wu naat te aussi mesure barrière yi ñuy wax aussi on l'a pas vécu ici daal. xaar bu yàgg bi ñàkk sàmmonteeg mesure barrière yi Ibra Sow ni moom dafa am lu ko bett amul benn organisation fii lii mooy wane suñu gouvernement yi wax dëgg yàlla joxul ci enseignants yi ñaako jox cër enseignants mooy lan wax nañ dañuy dellu bëgg nañ dellu bëgg nañ liggéey mais tamit doon na baax ñu organiser ko ci conditions yi gën maanaam ñu ñu ñu ñu wax ni par exemple fii Euh, libéré 5 am na ñu fiy jóge Rufisque am na ñu fay joggé donc vraiment ñu ngi ñaawlu encore une fois li c'est-à-dire que bëgg nañ jàngalé mais condition yi il faut mu réunir li day wane rek ni suñ démé ci école yi mën na am condition yi ñu xaar tamit duñ ko fekk ñi nga xamanteni ni ñoo nekkee ci Dakar dem dik di defar yëf yi di ñu xamal ni yu mel faw muy am bo xolé ci lim gu takku ci ay kat yi ñu war a yóbbu. ñun de ñu ngi ciy góorgóorlu moom. vraiment di di jàpp ci liggéey bi di fexe ñu respecté di sanction sociale yi malgré que jafe na objectif bi mooy ku ci nekk fa nga nekk di liggéey ñu yóbbu la mbooloo mi moo bari trop trop mais heureusement que euh, ñi ngi insisté ci masque yeeg gel yi. jàngalekat yi war a dellu ci seeni post ñaari fan ci weeru juin wante nee nañu cin bu naree neex suba xeeñ li ñu gis fii moom ci Liberté 5 xeeñu dara lu neex kon amuñu yaakaar ca la ñuy fekki ca bërëb ya. ñii ñaa ngi nii gis nga ko yaa ko gisal sa bopp ñii ñaa ngi entasew loolu moom danger la. loolee ñu ne ne xeeñul neex nee nañu nag gouvernement bu senegal moo ko tey. sóor ko yàq ko maanaam ci gàttal lu jiin njaaga mooy njàkk ndax dañuy làmbatu loolee gis-gisu yu Ndoye la bu CUSEMS mu gis ne li waroon gouvernement bi mooy au lieu muy dajale jàngalekat yi ci benn terminus ñëpp dafa déparé mënoon na koo def ci barab yu wuute bu ko defee mbooloo duñu daje baa bokk lay daje du bari Abdoulaye Ndoye CUSEMS tekkiit ne leneen lu dal jàngalekat yi na nguur gi xam ne moom kot mooy ko waral Abdoulaye Ndoye ñu déglu kook Salimata gàcc vraiment ñaaw woné né né nguur gi njàng mi soxalu leen amuñu ben respect pour kat jàngalekat kat yi ay agent de la fonction publique tay jii bo leen jëlé dajalé fi wax nañ leen ko né nañ leen mais nañu créer ay zone de départ ay point de départ parce que bu dee da nga jël ay junni junni nit indi leen fi liberté sax mais c'est sûr que lu ñu doon daw ci feebar bi mais dañ koy yop mais tay gis nga fi distanciation physique bi amul nit ñi dañu tàncaloo c'est un entassement parce que ne yaa ngi ut kër gooy toog nit ñi sonn nañ am na poussière di problème beneen bi nag dañ leen ne bu ñu eggee ci école yi bu ñu désinfecté wul école yi maanaam nettoyé ñu ko raxasuñu ko bu amul euh, thermoflash amul gel hydroalcoolique amul masque amul gant amul kit de lavage des mains bu dee classe yi dafa weesu ñaar fukki élèves parce que dañ ne bu mu weesu ñaar fukki élèves ministre bi mu noonu bu ci manqué rek bu kenn ubbi école yi ñun danañ ci taxaw veiller parce que du ñu nangu nag ñu sacrifier jàngale contexte boo xam ne ah, ah nit ñi bakkeen yaa ngi rot rek ci coronavirus. élèves yi nga xam ne dañuy def examen war a delluwaat ci l'école yi file ki fan ñaari fan ci weeru juin sax ngir mu gën a wér ci noonu la ñuy dem seeti élèves yi nga xamante ne war nañu wuti seen diplôme bu njëkk di diplôme universitaire ñu ngir lijjanti préinscription wutali biti réew ngir jàngee ji fa waaye seetlu gi moo di ñu bari ci ñoom ñoo ñooy sax far ñu dem beeg dikk bi dañ koo dakkal la tax mooy coronavirus bi ndax it bu ñu bëggee dem xamuñu fu ñu jëm. lolé ñi ngi ko xamlé ci reportage bi nga xamné ASB Amadou Sabar ba defal nañu ko. Ndey ba Fay ba tay tàyyiwul naam sax mbas mi di lembe rew mi mu nekk élève terminal ci lycée Seydina Issa Rouhoulahi ci Parcelles Asseni di xamné ne mi ngi wéy rek di amal ay démarches ngir yaakar am bourse étrangère pour après baccalauréat bi. Depuis avant Covid bi ñu ngi nekkoon ci lijjanti ñu ngi dem France wala génn dëkk bi dal pour après bac bi def yoy mais ñi ngi nekk ci démarches yi ba tay dal en tout cas. ti nañ de parce que wóorul sax ñu dem ñu ngi def ay démarches daal. xaritam bii mu bokkal classe Roqe Diop moom dafa mujjee bàyyi wutum bourse bi gannaaw ba mu ci waxtaaneek ay way juróom. fi mu ne nii moom defuñu démarche yi mun na am déwén fekkee situation bi stable na wala daal wax nañ ci mais ñoom nee nañ ñu bàyyi bu déwén rek mën a xool situation bi ni muy demee. am baccalauréat dem jàngi ja tugal loolee bokkoon na ci mébétu ki nga xam ne ne mooy Ndeye Soukay Fall nekk candidat jàngee ci lycée Abdoulaye Sadji nekk ca Tëngéej di xam dafa mujjee bàyyee mbas di coronavirus. wajalon nañ pour jangé ci dëkku ñeneen yeneen dëkk yi bu ñu amé bac mais actuellement ak suñu dëkk bi nim démé ni ak mbas ni nii gaw ma loolu dina mën nekk parce que déjà ñun am nañ problème pour retourner war école pour dem jangé gaw ma pour dem dëkku jaamu dina yomb daal ñu suñu biir dëkk rek suñu déplacement dañ ko wañé ané scolaire fi mu toll ni ndaw yi nga xamné né ñoo nekk ci classe terminale ñu ci bëri ci ñoom dañuy woy rek di wut ay bourse étrangère ngir mëna jangé tugal ginnaw bu ñu amé baccalauréat waye ci atum 2000 2020 bi lii di coronavirus bi tax na rek loolee yëpp tàggatémbe. xooli élèves yi nga xamante ne ji yàlla dafa muur seeni bët ñu nekk ca INEFJA di fa jànge coronavirus bi tax na ña leen yilif indi leen beneen programme bu bees boo xam ne baraay à la maison lañ ko tuddee mu di lool kilifa yi foofe kilifa yi amee njàng mi ci diwaanu kees ñoom ñoo ko teg ngir dimbali ñooñu nga xamante ne élève lañu te yàlla muur seeni bët seenum njàng bañ fee yam ñu seet nu ñu leen gunge ci jamonoy coronavirus gi loolee bokk na ci di leen jàngal ci seeni kër du ñam rek ci jàngale nag ne lépp lu di matuwaay jëm ci wàllu wér geram ngir muccal leen ci jàngoro ji jël nañu ko rawatina ci candidat yi nga xam ne dañuy def examen reportage Cheikh Anta ñi nga xamante ne seen i gët dafa sëgg nekk fii ci école bi di INEFJA ginnaaw mbas mi nag yu ci bëri dañ leen waxoon ñu toog seen i kër loolee tax nag jàngale jàngalekat yi jóg di dem seen kër di leen seeti xool naka lañ leen di tàggatee ci méthode bu yees ñu duppee ko méthode Braille ci seen i kër Marcel gay nekk professeur fii ci INEFJA. comme ni ko ministre de l' bi bëggee rek dafa ni ñu continuer jàngal xale yi ci biir kër gi puisque feebar bi du leen permettre ñu dellu ci école yi looloo tax nag ñun ci biir kër gi ñu defar ay exercice

buntu salle de classe yi Cheikh Ka moom responsable projet bi SHE INEFJA éducation inclusive comme mbas mi dafa wër réew mi te bàyyiwul kenn xaméwul ko way la go xaméwul kenn donc ñun aussi dañu xalaat ni dispositif euh, lavage des mains bi dafa wara dem dugg ci école yi bër bi ñu bëroon dañuy reprendre ñun aussi ñu jiitu gàttandu loolu kat yi formateur yi nekk fi ci INEFJA école bi nga xamante ci lañuy la ñuy tàggate way laago yi silmaxa yi jël nañu bépp matukaay ngir aaral leen doomu jàngoro ji ba du laal RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM bitim Réo. dellu dalalaat Barthélémy Ngam Barth euh, ñu doore ko lo soxal mbirum Jean-Claude Bouda mo ne woon jamono ministre défense fële ci réewum Burkina Faso dañ ko teg loxo. waaw mu di euh, teg loxo bo xamante ni mu ngi am gannaaw plainte bo xamante réseau ga fa saytu walum xex ger moom moo ko tegoon ci table procureur ba euh, plainte ba la nu koy toppee euh, enrichissement illicite moom Jean Claude Bouda sax yóbbu nañ ko euh, ca kaso bu Wagadugu li nu koy toppee mu di faux usage de faux ba pare it luubal alalu jàmbur mu jëm nag ci kër gu nice gu rafet goo xamante ni daf ko tabax ba noppi te bi muy def déclaré bi muy déclaré ay moomelam daf ko nëbboon gars yi ko wax ñu dem ba ci biir nag gars si xam ne moom moo ko moom ca la ñu engagé procédure ba kër ga ca boppam ci xayma euh, la ñu ko defaree lañ ko jekk-jekkaleeg meuble ya ca biir yëpp xayma nañ ko ci euh, demi milliard demi milliard genn wàllu milliard waaw. ci juróomi téeméeri million. voilà loolu la ñu xayma ca kër ga. ah loolu di mënu koo fàtte nag. ah loolu kay moom dañu na wa. Saleh rakk la ci Idriss Déby ma jiite Tchad moom jamono ji tama ëpp euh, ëpp koy buum ndax commission. droit de l'homme ba ñoo ko convoqué. waaw dañ ko convoqué gannaaw ba ñu demee ci benn ci ay toolam fekk foofu benn sàmmkat bu fa faatu ñu ne nag euh, loxoom génnu ca loolaa tax ñu parquet ba justice ba jël mbir ma euh, jël ko ci loxoom ubbi ci enquête ca lañ ko wóolu moom mu war a dem wuyu ji commission euh, boobule waaye moom dafa mës a wax ne yoonam newul ci sàmmkat googu faatu ci benn toolam wëlbateku nag ne lépp bàyyi na lépp ci loxol yoon. dëgg gi dana feeñ. république démocratique bu Congo premier vice président bu assemblée ba tëbal nañu ko député yi moom euh, xeex nañ lu rëy démb. Euh, assemblée nationale ba mu euh, dafa mujjoon soppeeku arène ay xeex cooki fu nekk ndaxte ñii dañoo ànd ak projet ba ña ca des àndu nañ ci. mu di euh, projet ngir destituer manam tëbal ki di euh, Jean-Marc Kaboun nekkoon euh, premier vice président bu assemblée ba tëbal nan ko nak ga waye ni nga ko waxee mbir ma seddul won ci yenn député yi mu di situation bo xamanteni tax nañu sampap laaj ndax du wat ay jiixi jaxa ci politique bu république démocratique du Congo nga xamanteni bari na ay crise yi muy traverser li leer moo di ki lekki fan daañ ci gëna xam lu leer Amnesty joxe xalaatam ci euh, jafe-jafe yi nga xamante ne ji insécurité di ñàkk kaaraange mi ngi koy dund ca ndaw ya fële ci réewum Nigéria. waaw ndaw ye ñoo ca gën a sonn bu ñu sukkandikoo ci rapport bi nga xamante ni Amnesty siiwal na ko euh, ni ki tey rapport bi nii la ko tuddee maanaam fomp nañu suñu rongoñ yéen it toppatoo leen conséquence yi nga xamante ni moo tukkee ci conflit bi rawatina jëm ci ndaw ñi fële ca Nigéria. rapport boobu démb la ko doon euh, tey jii la ñu ko doon siiwal ñu ànd ceeg Soda Thiam. l'enquête boobee nag ma ngay wane ñaawteef yi nga xamante ni ko Haram mi ngi ko doon def jëmale ci tuut tànk yooyu la ñoom ñoo ñii ñuy duppeele jihadiste nag dañu daan jàpp ay ndaw dañ leen doon recruter def leen na ay soldaa ci ay gox nag yoo xamante ni jihadiste ñoo fa daal di teg loxo Amnesty gis ni xale yooyu la dañ leen daan bunduxatal waaye itam di leen forcer ñuy xool ay ñaawteef yoo xamante ni ñoom ñoo ñii ñuy duppee jihadiste dañ koy def l'enquête bi itam fësal violence gi nga xamante ni l'armée gi doom na ko def jëmale ci ndaw yooyu nga xamante ni dañ leen daan jàpp teg ci di leen bunn xatal ci ay caserne loo xamante ni teguwul ci yoon ci loolee nag ONG bi di xamle ni am na lu toll ci fukki junni ndaw yoo xamante ni daal na ni ñàkk seen bakkan ci tëj yooyu ñu leen daan tëj am na ci sax benn ndaw goo xamante ni ay atam mi ngi toll ci fukki at ak ñeent jot na xamle la nga xamante ni moom nañu doom dund foofu mu di lu metti l'enquête bi ba tey moom it ma ngay daal di rek ñaawlu ñu ngi ko dippee couloir de sécurité di ab programme boo xamante ni Union européenne Royaume-Uni ak États-Unis ñoom ñoo ko daal di financé bu ñu sukkandikoo ba tey ci Amnesty centre ba nga xamante ni ma nga nekk ca état bu Gombe nag bëri na ay ndaw yoo xamante ne ñi ngi leen fay liggéeyloo te duñu leen fay bu weer deewee loole nag ñu jàpp ni ab travail forcé la bu fekkee nag ndaw yooyee kenn jàppalewu leen Amnesty gis ni ab génération lëmb nañu nar a sacrifier ci yooyu la jamono l'armée bu Amérique di tuumal waa Russie ne dafa yóbbu ay avion de chasse fële ci Libye. waaw euh, accusation boobu ku ko yennu rek mu di commandement africain bu l'armée américaine te mu nekk fële ca Stuttgart ñoom américain yi nee avion de chasse ya ñu yebal fële ca Libye Russie moom moo ko fa yóbbu ngir ñu appelé ay mercenaires russes ya fa nek di xex euh, ci euh, armée nationale euh, bu Libye nga Khalifa Haftar mom moko jité mu def xibar bo xamanteni mu ngi rek ay waxtu ba ñenn ci mercenaires ya daldi fa nañ aéroport bu nek, ci dëkk bi ñuy wax Bani Walid abandonné xex bi Tripoli Mohamed maa ngi lay gërëm bu baax euh, Barthélémy Mbissane Ngam. jaajëf. rajo askan wi. Koro News Youssouf Bodian. ci Afrique wàññi bu mujj bu ñu def am na lu ëpp ñetti junni ak juróom téeméer cas yu bees ci bésu tey bi continent bi mu ngi am lu ëpp 120 000 cas positifs maanaam lu ëpp téeméer junni cas 48 000 patients wér nañu maanaam lu jege tuuti juróom fukki junni 3592 ñoo ñàkk seen bakkan. Afrique du Sud ba tey mooy réew mi nga xamanteni mom la mbass bi gëna laal ci continent bi ñu am lu ëpp ñaari fukki junni cas waaye ñaari wër confinement bu strict président Cyril Ramaphosa wax na ni dañuy wañi mesure yooyu le bokk na ci daal di couvre-feu bi ubbiwaat marché yi ak baar yi ubbi tamit collège yi ak université yi. ci ëllëg sa di le 2 juin ci la Sénégal di ubbiwaat momit ay école am ci Côte d'Ivoire cours doorat na mardi ci établissement primaire ak secondaire yi nekk ca Yamoussoukro loolu nag ginnaaw ab grève boo xamante ni professeurs yi ñoo ko doon def li ko waral mooy ab cas coronavirus bu ñu gis ci benn école la. ministre ivoirien bu ñu dénk wàllum santé di Aka Awele nangu na ni am na ay cas yu bees lu am ci école yi depuis bi ñu leen ubbiwaatee. Algérie ak Maroc ñoom nee nañu dañuy wéyal jëfandikoo chloroquine ngir faj ñi amee coronavirus donte sax OMS wax na ni nañu ajan di essai clinique yi. suñu sukkandikoo ci kilifa ñaari réew yooyu nga xamante ni bokk nañu mbas bi gën a laal ci Afrique nee nañu traitement bi tax na ba ñu faj lu ëpp junni nit. te amul kenn ci ñoom ku ñàkk bakkanam ndax chloroquine jamono jooju ca France gouvernement bi jël na dogal léegi ñu bajatee jëfandikoo hydroxychloroquine ngir faj maladie di ab décision boo xamante ni dañ ko jël ginnaaw bi nga xamante ni au conseil de la santé bu publique tere na ñu jëfandikoo garab bi coronavirus bi tey ci aduna bi faat na lu ëpp 351 000 nit ñi amee feebar bi ci aduna bi tey ëpp na juróomi million ak juróom benn junni ñi faatu ndax coronavirus euh, ñu ngi ëppee ca Europe ak États-Unis waaye tey ca Amérique latin mbir mi mu ngi fay am tànku kanam moo tax Donald Trump di président bu États-Unis tere na léegi bépp voyageur bu bàyyeekoo ca Brésil ñëw ca réew ma Brésil moomulee jamono yi am na lu ëpp 350 000 cas confirmés moom sax mooy ñaari réew mi mbas bi gën a laal ci àdduna bi États-Unis moomulee sax am na benn laboratoire bu fa nekk moom mooy fukkeel bi nga xamante ni door testé ab vaccin ngir xeex coronavirus ci ay nit compagnie biotechnologie Novavax door na testami altine ca Australie lu ëpp téeméer nit am diggante fukkeet ak juróom-ñett ak juróom fukkeet ak juróom-ñeent ñoo bokk ci test yooyule laboratoire bi wax ni test yi def ci ay mala wane na ni vaccin boobule mën na kon aar yaramu doomu adama ci coronavirus sa firme bi wax ni kon su fekkee ne lépp demee na comme ni mu ko bëggee laata at bi di vaccin boo xamante ni dina aduna bi Kenya chercheurs yi ñu ngi ut lu ci ñeenti volontaire ngir tester tamit ab vaccin boo xamante Oxford moo koy pour nga mën a bokk ci test yooyu le nga doon kuy liggéey ci kër docteur te dëkk ca Mombasa wala dëkk bii di Kilifi ñu fàttali ni vaccin boobu ñu war a testé ca keña testé nañ ko ci lu ëpp junni nit yu nekk ca Royaume-Uni. savon de Marseille Alphé seen gam Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf maire bu Guédiawaye di Aliou Sall mbambu li ko toppoon ci coowal pétrole bi daanaka lu ne toll toppati na ko tey ji journal boo yëkkati mu ne la rakki président de la république ji Aliou Sall dafa corona ubbi l'observateur yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne démb ci la ñu am tàkk ba wér ci ne Aliou Sall jot na ci coronavirus bi loolee gannaaw ba ñu ko defalee ay test ba résultat yi génn ab ñaareelam moom Aliou Sall moo ko wàll coronavirus bi moom ñaareel bit nee nañu ab safara moo ko ko wàll l'observateur ci xaalima ak Amari Gueye ne Sall ci boppam moo ko yëgleel boppam ci réseaux sociaux la ko jaar jaarale bind ca ne dafa amee coronavirus ma nga ñu tëyee ci hôpital dalal jàmm bu géejawaay mi bi tëral ba ñu jug ci jàmm seen la dawee ñu daw dem ci xët mu njëkku la yéenekaay fekkaat fa xibaar ba li mu bind leen jege confiné nañu leen defal leen i test tey jii ci la résultat yi war a génn source waa nañu ci guddi gu bët setagul fa la ñu tolla coronavirus bi ci réew mi ne ñaari décès dooleeku nañu démb ci décès yi fi amoon fanweeri doomi aadama ak juróom-ñett ñoo faatu ci Sénégal ci covid bi Aliou Sall ak soxnaam ak seenum chauffeur ñoom it nañu leen seeni résultat génn démb dëggal ne dañoo coronavirus Les Échos jàngat ci ne Aliou Sall maire bu Géejawaay ak ay responsabilité ni ñu toll nga xam ne ku ne lay jëflanteel ku nekk lay laaleel li leer ba moo di bu ñu dee xool ay cas quarantaine dina bari Les Échos tegal ñu ci ne covid bi dóorati na kurpañ bu dal ne bu weesoo wàccal leen yi corona di Aliou Sall ak soxnaam Aïssata Sall coronavirus bi jëlaat na ñaari bakkan ci réew mi ñooñee démb la ñu faatu kenn ki jenn jigéen la ju tolloon ci juróom-ñaar fukkeet ak ñaar maanaam 77 ans keneen ki ci des di génn góor gu tolloon ci 68 ans la si ne kay ko ginnaaw ñaari dese yooyee ñu mujjee am ci réew mi waa ministère de la santé xam nañu démb fukki kaa yoo xam ne seeni borom ñoo nga réanimation ñi naan kuccaa kaa garaaw la woon dañoo jum loolee amul moom ci jëmi boppam Samba Sine di Kouthia moo ko weddil boppam mi ngi ko weddee ci page 2 bu l'Observateur ci page 1 bu Libération moom Samba Sine Kouthia moo fa nekk moo xëy ngar daajoo xët mu njëkk journal bi di fa wax ak waa Sénégal di fa waxit ni mu dundee jàngoroy coronavirus bi nee na li ko gën a jaaxal moo di xamul fan la ko coronavirus bi toppee ndax lu mu mën ci moytu rek def na ko bañ na ko ba këram bu ñuy lekk kenn ku nekk ak palaatam ngir di dandante mu ne bi ñu ne ko dangaa corona li mu njëkk wax ci xelam mooy moo ko tànn ngir mu doxal ko mission ndax moom Kouthia mësuta jóg leen ci di sensibiliser askan wi ngir ñu moytu coronavirus bi loolee mu leen di moytuloo bu demee ba dal ko rek moo di am na lu yàlla namu ci moom moom Kouthia wax na it ne bés bi nga xamee ne dafa am ay site yu bind na ma nga Sowetaas jot na benn message boo xam ne ba mu ko jàngee bu nuppi ba muy jooy tayu ko Kouthia ne moom am na yaakaar juree ci ne ñu ñëpp bu ñu booloo dinañu fi jëlee corona bi corona boobee l'observateur nee nañu bi président Macky Sall ne nañu jéem a dund ak moom boobee ba léegi jurul jàmm ci réew mi ndax Covid 19 bi rey na fi 19 personnes grand place dañu yoon yu ñu jël bu ko wàccul joote woote ji dina gën a yokk ndax seetlu nañu ne geste barrière yi ñu tegoon ngir di moytu coronavirus bi ñu ci askan wi tàmbali nañu koo sàggane li koy firndeel moo di farlok dogu gi ñu amoon ci takku masque yi loolee ñu bari ci askan wi tekki nañu te boroom xam-xam yu bari nee nañu masque yi ñoo gën a efficace confinement bi état d'urgence ba couvre-feu bi ci réew mi police yi ci réew mi coono ba ñu cay daj feeñul ci ñoom journal Le Témoin moo ko bind ba wax ñu ne lu jege ñaari weer ak fukki fan ñoom police yi def nañu ko ci terrain bi di régler couvre-feu beeg état d'urgence bi waaye la ñu ci amee ne ndàmpaay mu di prime nee nañu mi ngi toll ci 7100 francs junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk la ñu jox policier bu nekk témoigné nañu jëf jooje am na ci ñoom ñenn ci policiers yi ñoo xam ne ñi ngi koy ñaawlu waaye ba fii bureau des relations publiques de la police nanguñ cee wax ñu wax ci jàngalekat yi war a dellu ci njàngale mi grand place nañu seenub départ ñoom jàngalekat yi démb la woon waaye raté nañu départ a jugee Dakar ñu war leen a yàpp ci ñaari daw ak ñoom téeméeri kilomètre ak fanweer ak juróom-ñaar démb ba ñuy dem pëcc xooxuk jaxasoo gu mat sëkk moo amoon ca terminus liberté 5 bari yi ñuy wax respecté wuñu ko woon jàngalekat yi ci seen bopp sax seenum xel dalul ci dellu gi ñu war a dellu ñu bari ci ñoom li ñuy ragal mooy ñu dellu ca njàngale ma ñu bàyyee wax ci réew mi ay waxi cas importé ki cas communautaire di wax ay cas scolaire li am démb ba ñu leen di delloo fa ñu war a jàngale le quotidien départ sans barrière la ko tuddee bi li ñu dul sa fay la ko ci xët mu njëkk Le Quotidien wax ñu ne boo ñu seetaane ba virus bi tàmbalee doxi soxlaam ci lekkool bi loolee mooy musiba mbàbba kumba musiba mbàbba kumba dëgg nag moo dal xale bu jigéen bi ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi benn xale bu jigéen la bu dëkk Louga dañu ko may muur ko mu doon sëyi ci jamonoy couvre-feu bi waaye ca kaso ba fa lañ ko muree ndax moom mi doon sëyi ak ñi ko toppoon yépp teg nañu leen loxo savon de Marseille Alphé seen gam Opalia seen kenkeeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi Ibali Gis-Gis. mooy ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi tey jii lañu ciy waxtaane mi ngi jëm ci xeex gi ñuy xeex coronavirus geste barrière yoo xam ne eh, dañu ko digle ci réew mi ngir askan wi di ca jaar ngir moytu lu lawal coronavirus bi bokk na ci di faratal masque bokk na ci di dandante yoyé ak yenen ñu seetlu ne donte ñëpp bàyyiwuñ ko it gis nañu ne dal am nak woyefal gu ca am am na ci ñun teggi nañu seen tank nañu meloon ca ca xex ba ana lolé lan moko waral ak it lu mu mëna jur bu wéso li fi nekk mom la waxtané ak yeen ci gis-gis ci radio Futur Média Wara and ci waxtaan ak professeur Cheikh Mbacké Lo expert en santé publique professeur maa nuyu maa ngi lay fay Mohamed. weneen walit ñoo ngi ci ak euh, monsieur Agibou conté euh, responsable euh, distribution business développement ADEMAS agence pour le développement du marketing social Agibou Kanté maa ngi lay nuyu. lay nuyu Mohamed. professeur Cheikh Mbacke la ma door ak yow waxtaan wi relâchement ni ko tubaab di waxee mu di bàyyiliku ci xeex bi am na ñu ne am na laaj bu njëkk bi mooy ndax yow gis nga ne am na ci bu dee waaw lu ko waral. wa mohamed man de yaakaar naa ne loolu moom ñëpp teg nañ ci seen bët que relâchement bu mag mak mag mag am na ndaxte boo doxee tey biir dakar mhm. di nga gis ne terrain de football yi xale yaa nga fay dajaloo di def ñi daan naan ataaya ñi ngi naan ataaya ñen ña du tere nag du ñëpp am na sénégalais yoo xam ne moom fi mu ne nii ñoom ñi ngi respecté te ñooñu tamit war nañ leen jaajëfal wante ñu si bari commencé nañ bàyyi te lii am problème mooy bàyyi bi dafa dafa dafa dafa di loo xam ne dafa baaxul torop ci suñu wérgu yaram fii ci Sénégal kon nag ñi ñaaxaat nit ñi pour won leen ne feebar baa ngi mhm. feebar bi tey wane na ñi ngi gën a am ay cas gis ngeen tey dem nañ presque cas yu bari ñu ngi gën a am ñuy ñuy wàññeeku mais loolu kay dafa waroon tax sax ñu gën a yokk matuwaay bi ñu def ndaxte li nga xam ne moom la chef de l'État wax ne nañu dund ak virus mais loolu da ça veut dire au contraire dund ak virus bi mooy la ñu doon def ñu yokk ko fukk parce que booba dañoo téye woon virus bi ne nañu tëju léegi ñu génnee ñu nañu ah virus baa ngi fi wante na ngeen dund ak moom mais kooku kay dafa war a yokk dafa war a tax ñu gën a de yokk lañ doon def au contraire mesure barrière yi ñu gën ci farlu wante nag li ñu gis moom wax dëgg yàlla metti na

xaw a teggi seen tànk ndax bu fekkente ne danga nga jëli matuwaay yu mat sëkk ñëpp fekk si la ci nga dem ba ca biir ne nañu jéem a dund ak jàngoro ji est-ce que nit ñu duñ def seen xel ci ne eh, nañu nekk ca la ñu nekkoon rek est-ce que quelque part message am boobu ni ñu ko waroon a décortiquer décortiquer nañ ko noonu. Euh, Mohamed euh, man yaakaaruma ni message u président Macky Sall bi moo tax sénégalais di comporté woon ni mhm. man li ma jàpp ni moo waral sénégalais di comportement woon ni benn bi ci njëkk mooy que sénégalais yi nit ñi dañoo bëgg dund boo xam ne dañ ko yàgg gundee mooy toog ci grand place yi toog ci koñ yi di waxtaan di naan ataaya ak yooyu sénégalais xamul nga toogloo ko këram wala nga ne ko bul def rassemblement mhm. beneen bi si topp dañu jàpp ni bu ñu wuti jil lu am peut-être mën nañoo bañ a am lu ñu lekk maintenant li fi nekk mooy même bu dee président Macky Sall communiqué na mais ministère de la santé mi ngi def li ko war ci communication ak ay agent wam au niveau communautaire mais nit ñi ci boppam pour nga sensibiliser leen fi mu toll nii dafa metti mettiwaay boo xam ni ko ci toogal di wax ak moom am na ñoo xam ni ba tey Sénégal gëmuñu ne feebar bee ngi fi te ku nekk xam na ni feebar bi lu palpable la nit ñaa ngi feebar ñu ngi koy gis da ngay ci koñ yow tànk gisoo ku dëkk sa kër feebar doo mën a gëm ni feebar bi dafa am lool tamit c'est difficile c'est difficile comme li professeur wax pour tourner xale yaa ngi fubal nit ñaa ngi def bi biñ ne na xale yëpp toog seen kër tëj ah, école yeeg yëpp gis nga xale yi nekk ci mbedd mi bopp koñ boo tourner xale c'est-à-dire il faudrait tamit parent yi

très bien euh, euh, Agibou maa ngi ñëwaat ci yow ma jeexale ak professeur Cheikh euh, Mbacké professeur dégg nga li Agibou Kanté man ni ma ko mën a comprendre mooy parce que bu fekkente ne nee na mm, sénégalais dañu toll foo xam ne dem nañ ba xam ne bu ñu génnul wuti lu ñu am corona bi dana leen xaw a yóbbu sa sil xafaar laaj bi di mooy ndax corona yanuñu loo xam ne ñun dañ dem nañu ba attanuñu ko ndax olof ne ku bëgg a dee wéqu bu fekkente ne dañ la bul génn heure bi bul def lii bul def laa bul dem liggéey ndax moytu corona à un moment donné sénégalais day dem ba c'est-à-dire faire un choix naa ko risqué ku bëgg a dee weexu est-ce que euh, mentalité boobu aussi tamit ñuy doxee andiwul li waaw man xam nga loolu d'accord naa ci xam nga loolu moo tax ñu def mesure assouplissement bi ne kat nañu fexe parce que virus bi moom ala kulli ali danañ dem ba moment tee boo xam ne dañuy dund ak moom kooku moom même bu fekkee ne woon defuñu assouplissement avant danañ ko defi parce que il faut ñu dund mais loolu dafa doon laaj la ñu doon def.

rassemblement yu bari yi suñ ko mënee éviter ñu éviter ko parce que lii luy weesu la te luy jàll la moo tax ma bëgg vraiment ñaanaat sénégalais yi ñaaxaat sénégalais yi mais nañu dimbali ñi nga xam ne mooy waa kër docteur te di xeex guddeeg bëccëg ci hôpital yi nelawatuñ defatuñ dara te li ñu bëgg rek mooy sénégalais yi am seen wér-gu-yaram kooku nag sénégalais ñu ku ci nekk am nga ci responsabilité parce que ku ci nekk nag bàyyi nga sa kër koo am ne virus yu baaxul ci moom de virus yëpp d' accord nañ ne moom au moins am na lu bari xamuñu ko ci virus bi waaye au moins xam nañ ne day faagaagal mag ñi xam nañ ne day faagaagal ñi am ay feebar mhm. te ku ci nekk sa kër am nga ko feebar wala am nga am mag bu fa nekk kon nag ñun ku ci nekk war na jël responsabilité ah man de bu dee man rek du ma ko joxe bu ko defee rek ñëpp def ko incha allah dinañ jóge ci malade moo moo tax ñu war a profité aussi di gën a ñaax ñi nga xam ne vraiment ñi ngi relaxé wu te ñi nga xam ne nag ñi ngi def li ñuy wax ñu leen di gën a. Euh, encouragé parce que quand même am na si ñoo xam ne wax dëgg yàlla da nga leen di xool xam ne ñii dañ koy respecté à la lettre. très bien ñoo xam ne nag duñ ko def kon nag loolu vraiment nañ leen jaajëfal te ñeen dañu aussi ñu ñaaxaat leen encore une fois di leen ñaan.

Euh, président dafa xam ni nit ñi cest dire mënuñu dund ak feebar ak tamit ñàkk am loo dundee loolu nit ñi mënuñoo dund ak ñaari yooyu moo tax ñu choisir def benn relâchement bi du pas parce que comporté woo leen ñu leen neexee de relâchement bi c'est pas comporté dem leen wuti lu ngeen am pour mën ko gundee parce que xam naa ni si ça continue comme ça transport interrégional il y a yooyu yëpp yëpp yëpp président mën na bañ a bi parce que aussi quoi qu'il en soit ne on est menacé on est menacé et la population est menacée te ku ne xam na ni feebar bi am na foo xam ne bu fa tollee wax dëgg yàlla lu suñuy plateau technique relevé relevé mënatuñ ko contenir on risque d'être confiné à partir de chez nous te loolu gis nga cas bi am euh, comment dire Diender par exemple ñu jël plus de quarante personnes ci benn village ba bëgg leen a ba mu indi fa coow cest à genre yu mel noonu moo tax sénégalais ci boppam ñoo war dimbali nguur dimbali ministère de la santé ci boppam ci xeex bi pour ñu mën cee génne parce que ministère bi tamit mënta nekk fépp agent ministère mënuñu nekk fépp man daal dama yaakaar ni bu continuer nii moom Euh, état d'urgence bi buñ ko relever. très buñ ko relever. parce que buñ ko relevé dina jur mu. musiba musiba bo xamné sénégalais bu xam buñ koy waxee. jërëjëf Hadjibou Kanté maa ngi lay gërëm bu baax a baax responsable distribution et business développement ci ADEMAS agence pour le développement du marketing social gërëm professeur Cheikh Mbacké Lo expert en santé publique gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média. mu ne woon gis-gis newoon xibaaru digg bëccëg gi newoon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi ne newoon Abdoulaye Diop ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogu Diène